première question ndax Amadou Ba est de la situation. ah ça c'est une question piège. <laughs> non du question piège. non bon c'est, c'est juste pour euh, te dire que ni euh, à partir du moment président de la République choisir na ko. Mm-hmm. te xam na li tax mu choisir ko. donc mënuma wax lu dul donc période bi ñu nekk mm-hmm. ak moment bi ñu nekk. Mm-hmm. tenant compte ci moom élément yi mu am yëpp choisir ko. évidemment je ne peux que l'approuver. donc gëm naa ni euh, je lui fais confiance. Mhm. président Macky Sall su demee ba def ko rek am na lu tax mu def ko mais li ci am solo. Mhm. je crois que ni mënuñu ko juger a priori da nga koy joxe bonne foi. Mhm. compte tenu fi mu jaar yëpp. Euh, par rapport à son parcours personnel au niveau de la haute administration liggéey na ci. par rapport ak suñu compagnonnage politique ci biir parti bi ak aux côtés du président Macky Sall aujourd'hui tey bu ñuy wax lu bari ci PSE pratiquement c'est avec lui que ça a mm-hmm. véritablement démarré donc mm-hmm. am na atu yëpp par rapport ak moom pedigree personnel am background personnel am mhm. parcours am au niveau de la haute administration et sur le plan politique aussi mhm. il faut pas oublier en par exemple la bataille de Dakar c'est lui qui l'a gagné mhm. euh, à un moment donné xaw na am retrait tuuti ci gouvernement bi mais terewul amul benn yoon boo nga xam ni euh, compagnonnage am ak président Macky Sall arrêté donc su ko indiwaatee teg ko tey da nga koy mesurer ci li nga xam ni président wax na ko ci message am ce sont les enjeux économiques. Mmh. Ce sont les enjeux d'ordre social. Social, oui. Les urgences sociales mm-hmm. par rapport ak monde bi ni muy doxalee ak dëkk bi euh, il fallait quand même moom mu poursuivre li nga xam ne commencé woon na que quand il était ministre euh, des finances et de l'économie donc je crois que ni choix bi euh, ensuite c'est un homme de consensus parce que gis naa rarement ñu def choix ci dëkk bi mu xaw a am je n'aurais pas dit l'unanimité parce que unanimité amul fenn. mais en tout cas la majeure partie de tout ceux qui se sont prononcés publiquement gis naa ni approuvé nañu choix boobu cela veut dire que donc a priori le président ne s'est pas trompé maintenant nag li ci des mooy foofu lay terminer liggéey bi qualité liggéey bi moom rek moo mën a déterminer définitivement ndax ça été bien fait ou non parce que liggéey lañ ko sant bu ñu demee ba yegg ci fi nga xam ne jeexal na moom ah les gens vont apprécier est-ce que par rapport aux objectifs bi ñu am. président teg ko ci population yi séntu ko ci xaar ko ci am na lu mu ci def à partir de ce moment nag je crois que jugement bi foofu la war a. je veux donner un a priori c'est un excellent choix. je vais donner matière à débattre bugguma mu yam rek ci justement la personne ou personnalité am c'est un directeur de campagne pour 2024 ou c'est un dauphin caché.